أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما نحن بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا متفق عليه mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi sunu xutba tey mooy arbaina fawaid fi fadli man maata fi lxajji wa huwa muhrim sunu xutba tey mooy ngëneelu faatu ci aj te ba ngay faatu yaa ngi armal ñeen fukki ngëneel moo ci nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadisu ibnu abbas yonent bi aj gi mu aj ajam gu mujj taxaw na ci barab bu ñuy wax Arafat moo tax Arafat soo fa demee tey da ngay fekk ñu def fa ay tànt lal fay moket ak ay siyaada gars yi bu ñu ñëwee toog waaye yonent toogu fa woon dafa taxawoon lu koy wéral mooy lii yonent dafa taxawoon Arafat nekk ci kaw gëléemam ci ñi mu àndaloon am kenn ku nekkoon ci wetam moom it nekk ci gëléemam yàlla daal di def waa ji gëléem gi def benn bruit waa ji daal di jóge ci kaw gëléem gi daal di daanu ci suuf bat bi daal di damm waa ji daal di faatu di waa ji faatoo ki yàlla yónni woon ci jaam ñi mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne igsiluuhu bi maa in wa sidurin sang leen waa ji waaye bu ngeen koy sang na ngeen fexe ndox mi ngeen koy sangee ngeen def ci siddéem mu ne wa kafanuuhu fi sawbayni na ngeen ko sange ñaari mbalaan mooy yi mu armale wala tamsuuhu bi tiiban mu ne moytu leen ngeen def ci yaram bi parfum wala tuxammiru ra'sa mu ne bu leen muur bopp bi bàyyi leen noonu bopp bi ni mu muuroowul woon bi muy armal bu leen muur bopp bi mu ne wala tuhannitu bu leen ko jegeel gët lépp luy xeeti parfum ak luy xeeñ bu leen ko def ci yaram waa ji bu leen ko def ci mbalaan mi moom yonent bi mu ne fa inna allaha yab'asuhu yawma alqiyamati mulabbiya da gis ngeen waa ji tey ëllëg yawma alqiyam buy dekki day dekki di labbayka naan labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak waaw mbokk yi nit day jóge fii di dem Tiwaawoon dee ci yoon wi ñu ne texe na nit jóge fii dem Touba dee ci yoon wi ñu ne texe na nit jóge fii dem Kaolack dee ci yoon bi ñu ne texe na parce que ci sëriñam la jëm nit di dem Madina Gunaas dee ñu ne texe na nit jóge fi dem Màkk dem ci yàlla ak yeneen di bi dee coow am fan la xel gën a war a dal mooy ku dee yaa ngi armal ku dee yaa ngi faatoo makkatal mukarram yaa ngi armal xoola kii lan la yonent wax ci moom def leen lii yëpp waaye bu ngeen koy muur di ko dugal ci bàmmeel bu leen muur bopp bi ndax yawmal qiyaam buy dekki day labbayka di wuyu yàlla ku am ku dee màkka loo warati wax lu dul sant yàlla ba ngay dee yaa ngi yendu arafat ba ngoon jot nga fanaani musdalifa julli fa fajar war a dem mina sànni ji jamra nga faatu ci yoon bi ku mel noonu ku ko am sa xel bu dalul ci moom dootul dalati mbokk yi ci yàlla hadis bi boroom xam-xam yi ko doon firi dañ cee bind 40 njëriñ yu kii am kii dee ci yoonu yàlla fekk bi muy dee mi ngi armal bi muy dee mi ngi ci aj bi ci njëkk mooy anna min mahzurat al ihram taxtiyatu ras bokk na ci li ñuy moytandiku ku aji màkka li ngay moytandiku mooy muur sa bopp ci mbalaan mi nga teg sa kaw amoo droit muur sa bopp ci mbax ne doo ko teg sa bopp kaala doo ko teg sa bopp képp koo xam ne da nga aji ba armal amatoo droit muur sa bopp loolu moo tax yonent bi mu ne waa ji bi mu faatoo bu leen muur bopp bi bu ngeen koy suul bàyyi leen ko noonu ñaareel mooy min mahzurat al ihram at tib xam ngeen ko armal du laal parfum du laal lu xeeñ moo tax yonent bi ne leen waa ji bu ngeen koy suul mooy tandiku leen gët bu leen laal lu xeeñ bu leen ko laalal yaram bi waaye bu leen ko laalal mbalaan mi lu tax ndax ku armal yi yëpp aram na ci yow muur bopp doo ko def waaye doo xeeñ parfum lépp luy xeeñ doo ko laal ñetteel atiibu lafzatun amma fa kullu ma sumiya tiban fa huwa mahzurun anil alal muhrimi lépp luñ naan gët cuuraay parfum lépp luy xeeñ lu neex muy diw wala lu ñu mën a laal loolu dafa araam ci ko armal du ko laal loolu tax yonent bi na gaa yi mooy tëndiku leen loolu bu leen ko laajal bu leen ko laalal seen mbokk mi ñeenteel mbokk yi as sunnatu fi taxsil al mayit an yuxlata ma al maai sidr bokk na ci li ñuy jànge ci waa ji lim faatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen sang leen ko waaye bu ngeen koy sang boole leen ak ndox mi siddéem luñ ci dégg mooy ku faatu buñ lay sang ndox min lay sangee dafa war a am siddéem ndax yonent loolu la wax gaa yi boole leen ak ndox mi siddéem keroog ba doomu yonent bi faatoo roqoya yonent bi woo jigéen ña ko doon sang def leen ne ndox mi def leen ci siddéem loolu tey la yonent bi waxaat fii ci waa ji faatu ci arafa jóge ci gëleemam daanu baatam damm yonent bi ne waa ji bu ngeen koy sang def leen ci ndox mi siddéem juróomeel an al muhrim yukfanu fi siyaabin ihraamihi fi siyaabi ihraamihi ku faatu fekk yaa ngi armal bi nga faatoo jaratul jëndi mbalaan mun lay sàngee lu tax sa mbalaan mi nga armalee moom lañ lay suulee armal bi nga armale moom lañ lay suulee kenn di uti beneen yére di la ko sàngee juróom benneel mooy ann al muhrim al mayit yubaas mulabbiyan yawma al qiyama yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku faatu fekk yaa ngi armal ëllëg yawma al qiyam booy dekki da ngay woy wuyu yàlla da ngay labbayka ba taxaw ci kanamu borom bi tabaraka wa taala juróom ñaareel an alhajj ida maata muhriman la yuqda anhu hajjuhu li anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam lam yaamur bi qadaai hajjihi ku faatu yi fekk yaa ngi armal sa aj jeexagul faatu nga ci yoon bi moo xam da ngaa def tawaaf daa di faatu moo xam da ngaa dem safa ak marwa faatu moo xam da ngaa dem arafaat faatu wala nga dem musdalifa faatu wala nga dem jamra ya faatu sa aj jeexagul kooku kenn du ko fayal ajam kenn du ko mottali aj gi yàlla nangu na ko kenn du ko mottali mat na ca yàlla tabaraka wa taala kenn du ko mottali kenn du ne sama papa dafa bëggoon aji daal di fay faatu kon foog ma dem ajalaat ko déedéet kooku ajam mat na kenn du ko fay ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu wax ci hadis bi ba mu jeex gisuñu mu ne fayal leen waaji ajam aj bi manqué na déedéet aj bi yegg na juróom-ñetteel wujubu taxsil al mayit li qawlihi igsalu ku faatu dañ la war a sang su fekkee mën nañ laa sang am na ñuy faatu kenn du leen sang c'est parce que benn ni ñu faatoo moo tax kenn mun leen a sang wala amunu moyen pour sang leen waaye lu dul loolu ku faatu dan laa war a sang ak ku mun doon boo faatoo dan laa war a sang hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee àdduna dan koo sang waaye sangu nu ko nit ñuy sangee ñun parce que nun bu nuy sang dan nuy simmi ki lay simmi dana la simmi ba mu des sa jumbax ak sa oom du ci teg bët waaye dina ko simmi de ak formule bu mu ko mën a simmee ak formule bu mu mën a utiliser ba du ay bëtam du tegu sa awra moo tax ñuy wax kuy sang néew foog nga am ay jumtukaay bokk na ci ñaari serviette benn bu njëkk bi ngay teg boo ñëwee simmi yére yi tekki li mu takkoon balaa ngay simmi tuwee ji wala ngay tekki sër bi jëlal benn serviette teg ci jumbax bi ba ci oom bi ñu téel la ko nga dooga tekki sër bi wala nga doog a simmi tubéy ji bu fekkee sax tubéy ju ndaw ju mu jiital ci suuf say loxo ñooy dugg génne ko waaye sa bët du tegu ci awra ki ngay sang kenn du sang néew di ko futti dung loolu dafa araam waaye sang néew lu jaadu la lu war la ci fekkee ne su fekkente ne mën nañ laa sang juróom-ñeenteel mooy wujubu takfini l mayit li qawlihi kaffinuuhu sang néew loolu dafa jaadu ku faatu ku ne dan lay sang hatta yonent bi alayhi salaatu wasalaam sang nañ ko ci ñetti sër ñett fii nag boo waxee ñu ne juróom-ñaar dañ ko defal tubéy dañ ko defal mbubu nañ ko defal kaala nañ ko defal daggate ko ba mu nekk juróom-ñaar sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam kenn defalu ko woon tubéy kenn defalu ko woon kaala kenn defalu ko woon mbubu kenn defalu ko woon liñ ko defaloon mooy ñetti sër première deuxième troisième ci loolu lañ ko laxasoon biñ koy sang ci ay yéreem lañ ko sang kenn futtiwu ko loolu lañ jot xabaar ca yàlla tabaraka wa taala sang leen ko bu leen ko simmi bi julli ko jotee yàlla ne maa koy njëkk a jullee balaa kenn di ko jullee su ma paree ma jox ko sama xarit bi jibril mu jullee ko su paree nag na ngeen ñëw kenn ku nekk na ko julleel boppam noonu lañ jullee woon sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam fukkeel mbokk jullit yi mooy tahrimu lubsul maxiit alal muhrimi alxayi wal mayit ki aj màkk góor la jigéen la wala bu dee góor araam na ci moom mu sol lu ñu ñaw bi mu faatoo araam na ñu solal ko lu ñu ñaw moo tax ñu ne ñaari mbalaan yooyu mu armale woon lañ koy sàng daal koy roob bi muy dund faatuwul araam na mu armale lu nu ñaw moo tax muy nekk ñaari sër kese ku aji du sol lu nu ñaw bi ngay armal ba aj gi jeex lu ñu ñaw doo ko sol moo tax ngay mbalaanu ñaari mbalaan yooyu woddoo benn bi beneen bi nga tarax laa yow ndax loolu moo dagan ci yow su deewee waxi noppi lu ñu ñaw araam na ci moom mbalaan yooyu lañ koy yóbbee encore lañ koy sànge fukkeel ak benn an al mayit gayrul xaaj yutib ku faatoowul makka faatoowoo ci armal buñ la sàngee ba sàng la buñ la sàngee ba sàng la foog ñu def parfum ci sa yaram foog ñu laalal la ñu xeeñ ci sa place yi nga doon su jóoteewee jë bi foog ñu def ci parfum bakkan bi foog ñu def ci parfum ñaari tënk yi foog ñu def ci parfum ñaari oom yi foog ñu def ci parfum baaraami tànk yi foog ñu def ci parfum léeg-léeg nga dégg ñu ne ku faatu danañuy def parfum ci wéteen def ci nopp yi def ci bakkan yi def ci poqotaan yi leen saa yi sax nga dégg ñu ne def leen ko ci suufam loolu daa araam néew kenn du jël dara di ko dugal ci suufam lu dul ngant am ngant mooy bu fekkee am na luy génn ci moom loolu mënta taxaw ah mën nañ jël parfum nag daal di koy saañ foofu pour mu bañ a génn su fekkee mënul ta nekk sax kon dañuy ut coton bu bëree bari ut perméable jël coton bi jiital ko jël perméable ngembe ko ko pour deret jooju wala loolu di génn ci moom bañ a taxaw waaye bu dee póon la ak cigarette yenn saa yi nga dégg ñu ne sang naa benn néew muy génne pon bi ak cigarette bi ma dem wooy mbokka bi ne leen kaay leen kaay leen ngeen xool ñu ne lii lan la man leen pon bi la moo ngi nii di génn bu yeboo yéen ñi dox ngeen bàyyi ko su ngeen ko bàyyiwul yow bu ngeen deewee nii lay génnee ba jeex tàkk pon du dem yowmal qiyaamati foofu njuumte li nit ñi def mooy dëpp néew bi kenn du ko dëpp ndax dëpp dafa araam dañ koy wet dañ koy wetal wetu ndeyjoor jël sarvet daa di koy def ci suufu faar bi ci suuf mu tooju bopp bi tegu tànk yi tegu faar yi bañ a tegu ci dër bi nga xam ne sarvet bi mooy yëkkati foofu su ko defee poon googu di génn ak cigarette si daal di génn ba jeex tàkk waaw boo waxee Sénégal ñu ne non cigarette araamul de li ci Iblis saw moo tax mu bon lu Iblis saw kay jarta laal kan ci ñun fii la Iblis di saw ci añam mu añ ko kan ci ñun fii la Iblis di saw ci mburu mu ndékkee ko mbokk yi ku mel ne Iblis kay ci ak mbonom ñu ne moo saw ci garab garab googu mooy póon ñu ne moo tax mu araam bu fekkoon ne loolu dëgg la sax kon jar naa bàyyi waaye nag loolu du dëgg iblis sawul ci benn garab pour que garab googu araam póon ci boppam la yàlla araamal mbokki julit yi fukkeel ak ñaar an al mayit gayru lxaaj yugatta rasahu képp ku faatoowul ci aj faatoo mag bu boo faatoo ñu sang la buñ lay sang dañuy muur sa bopp loolu moo tax néew yi ngeen di gis fi yëpp buñ leen di jullee su imaam génnee ñu teg néew bi ci kanam da ngay gis ñu muur bopp bi suñ koy dugal ci biir bàmmeel da ngay gis ñu muur bopp bi su fekkoon ne dafa aji mu dee suñ koy dugal ci bàmmeel bi kenn du muur bopp bi lu tax ndax buy dekk yowmal qiyaam day labbayka di wuyu yàlla mbokk julit yi kon lii lenn la ci lu borom xam-xam yi yal na yàlla fay leen firil ñu hadis ibnu abbas waa ji aji woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di faatu ci kanamu yonent bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di joxe lii ci moom beneen biñ ci jële mooy fadlu man maata ala taatillahi muy fukkee la ñett ngëneelu ku dee ci topp yàlla tabaraka wa taala gis ngeen waa ji xoolal li mu am ak li yonent bi santaan nañ ko defal lu tax parce que dafa dee ci topp yàlla kon kuy faatu bu yeboo nga góorgóorlu nga faatu ci lu neex yàlla waaw nga faatu ci lu neex yàlla ku faatu ci lu neex yàlla nit ñi buñ fi nekkee di wax it ak di amay sikki sàkk ak yow fekk moom yàlla xam na li mu xam yow xam nga gis nga ci suratu yaasin waa ji doon waxal yàlla gars yi daal di koy mere daal di koy rey biñ ko reyee dafa dañoo yaakaaroon ne perte na waa ji nekk biir aljanna di zibile naan yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min al min al mukramin aka nekkoon gars yi ñu gis taraanga yi ma yàlla defal ginnaaw ba ma bañ ma reyee dañoo yaakaar ne perte na fekk maa ngi ni aljanna ak samay taraanga ak samay xéewal gars yi ñoom dañoo yaakaar ne waa ji perte na jeexal na moom ma ngay zibile biir aljanna naan maa ngi nii tey biir aljanna toog mbokk julit yi fukkeel ak ñeent mooy fadlu talbiya li qawlihi yubas mulabbiyan ngëneelu labbayka baat yi boo xamoon lu muy tekki ba nga armalee jóge Médine dem ba biir ali daa di armal di nga sangoo ba julli sa ñaari armal daa di julli ñaari rakk daa di yéene ban aj ngay aj nga tàmbali labbayk allahumma labbayk yàlla yow rek laa wuy wuyuma kenn ku dul yow labbayka la sharika lak maa ngi lay wuyu du ma la bokkaale du ma la dendale kenn wala lenn moo tax da ngay gis kuy def maaka yóbbaale ay téere yóbbaale ay gàllaaj fees del hmm? mooy wóolu woo yàlla di dugg ci avion di toj ay nen di teg ay xobi poftan di ko dëgg nit ñi dañoo bañ jaamu yàlla lu dul ñu def ci bokkaale ngay gis kuy génn këram sax di dem foog ñu sotti ndox ci buntu kër gi ngay ñëw di dugg oto bi ñu sotti ndox ci buntu oto bi nga dugg ci oto bi toog daal di bind juróom-ñeenti rëdd daal ne bu ma dellusee fukkeel ko waa kër gi di la nuyu ngay joxe loxo càmmoñ waaw ñu ne joxe loxo càmmoñ bu bàkkaar yooyu bidaa yu bon yooyu bokkaale yooyu mbokk yi fan lañ jëm ak moom ana xamu leen ne laa sharika lak yàlla bëggul ko bokkaale moo tax bu waa ji ne labbayka allahumma labbayka lu mu ciy teg labbayka laa sharika lak beneen bi mbokk yi mooy masruiyatu talbiya bil hajj lil bil hajji dañoo yoonal kuy aji foog nga labbayk foog nga talbiya moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne bu leen muur bopp waa ji buy dekk yowmal qiyaam day dekki di labbayka ba egg taxaw ci kanam yàlla fukkeel ak juróom benn mooy wujubul xawaadis fi ahdi rasul bu leen yaakaar ne ay accident tey rek la commencé am màkka yonent bi taxaw na ni di aj nit taxaw ci wetam daal di xawweeku ci xeer bi daal di daanu dee ay accident ja bu depuis jamono yonant la du léegi rek la tàmbali beneen bi mooy ku dem ci yàlla dee lan mooy wax lan mooy coow li ndax loolu gàcce la nga dem di jaamu ci sa borom xam nga lan mooy gàcce nga dem ci stade di seetaan nawetaan tribune ba màbb nga dee xam ngeen lan mooy gàcce nga dem seetaani làmb ñu rey la fa wala nga dee fa loolu mooy gàcce xam ngeen lan mooy gàcce dem sorti ànd ak ay xale yu jigéen dem géej lap fa dee loolay gàcce waaye damaa dem jaamu ji yàlla dee dama aji màkka dee dama dem julli ji jàkka dee ah dama dem di liggéey yi dee te loolu ndam la ñooñ ñoo sànkul seen dund ñooñ ñoo am victoire ëllëg ci kanamu yàlla xoolal ëllëg yow mal xiyaam nit ñi di dekki di génn ci suuf yow nga dekki di wuyu yàlla di yuuxu ci kaw ku la gis xam ne yow da ngaa aji woon lan moo ëpp loolu ñoom dong la ñuy xàmmee yow mal xiyaam mooy ñi dee ci aj ñoom dong la ñuy xàmmee ne ñii ci aj lañ dee ku ren ku dul ñoppi da nga daan patt da ngay tiit ñoom bu ñu dekkee dañuy ànd ak kóolute naan labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk la sharika lak loolu ku dem des fa kay sant yàlla la waaye ci soo xamee nag soo xamee soo xamee ci ku xam yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko mbokk julit yi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fukkeel ak juróom ñaar isbaatul baas dinañ dégg ci hadis bi ne dekk am na yowmal qiyam ndax yonente bi nee na ñii dañuy dekk yowmal qiyam di labbayk kon bu ñu deewee dañuy dekk kon ku gëmul dekk bu yeboo nga xam ne di nga dekk zaama allazina kafaru an lan yubasu qul bala wa rabbi la tubasunna ñi gëmul yàlla nee nañ dee amul dekki amul borom bi ne giñ naa la tuba asunna dinañ leen dekkil jarul woon yàlla di giñ waaye daf ñu bëgg a won ne rek dinañ ñu dekkil kon dekki am na yàlla wax na ko yonent bi wax na ko yonent bi nee na sang leen waa ji sang leen ko bu leen muur bopp bi buy dekki yowmal qiyaamati day la bayka kon dekki am na yonent bi wax na ko hadis bi dëggal ko mbokk julit yi fukkeel ak juróom-ñett anna al muhrim lahu takfin ka gayrihi min al amwaat illa anna lahu tariqatun uxra ku faatoo mag faatu yaa ngi aj faatu yaa ngi armal yaa ki faatoo feneen nu roowu leen de nuñ leen di waajalee du benn du benn am na différence lii wane différence bi mooy dinañ leen sang dinañ leen sang waaye sang bi nu roowul dinañ leen suul waaye nu roowul sang bi fii dina am parfum fële du am fii dañuy muur bopp bi fële kenn du ko muur kon am na différence du benn lu tax parce que fa mu faatoog na mu faatoog fii du benn ak feneen fu mu dul mun a doon mbokk julit yi fukkeel ak juróom-ñeent isbaatu ismun min asma'i l axira wa huwa yawma alqiyama dinañ jàng ci hadis bi ne yawma alqiyama am na ndax hadis bee ko saxal yàlla wax na ca alquran laa uqsimu bi yawmi alqiyama du ma giñ ci yawma alqiyama man yàlla jarul may giñ naan nit ñi yawma alqiyama am na parce que am na waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na waa ji yubaas yawma alqiyama mulabbiyan ëllëg yawma alqiyama yàlla da koy dékki muy labbay muy labbay ko kon alquran saxal na ne yawma alqiyama am na yonent bi saxal na ko ñun tamit kon mbokk jullit yi nañ gëm ne yawma alqiyama am na ñaar fukkeel aljazaau min jinsil amal loo liggéey rek loolu lañ lay fay loo liggéey loolu ngay fay fa kullu ma jaa mulabbiyan fa innahu yubas mulabbiyan kama jaa mulabbiyan fa innahu yubas mulabbiyan waa ji ba muy dem di jaamu ji yàlla ba mu armalee ba def lépp lan la doon génn ci gémmiñam mu ngi labbayka kon yowmal qiyaam buñ koy dekkil ci loolu lay dekki ndax yonent bi nee na ku nekk yub'as kullu abdin ala ma mata alay ku nekk ni nga deewee ngay dekki fi nga deewee rek noonu ngay dekkee ku dee esat fa ngay dekkee de billahi wallahi taala ku dee ci baar bi yowmal qiyaam ci baar bi ngay dekkee ku dee yaa ngi meesu yaa ngi xeesal yaa ngi sol lu bon billahi wa rabbul kaaba sooy dekki yowmal qiyaam bu nit ñi dindee mees it yàlla dina ko ci delloo yonent bi moo ko wax te yonent bi du fen yóbbu as la wax danañ dekkil kullu abdin bépp jaam ala ma maata alay ci lam dee waa ji bi muy faatu lan la mu ngi labbayk moo tax yowmal qiyaam buy dekki day labbayk ah xool leen tey xool leen tey nit ñi fu ñuy faatoo nan xool tey nit ñi fu ñuy faatoo allahu akbar loolu moo tax soo bañee dee fu bon bul fa dem yaa ngi nit dem xamoo ndax da ngay delsi beneen bi mooy yàlla du juum yàlla def hasard lu mu def noonu la bi ñuy waaj a dem am na ñu tardé woon demuñu xoolal ñooñu lim leen jaraloon est ce que xam na lu leen yàlla fanqalal qadrullah wa ma shaa faala yàlla mooy def lu ko def yàlla lu mu def noonu la benn buur dafa amoon accident ñu dagg nopp bi bi ñu daggee nopp bi mu ne xaritam ay la man de am naa problème xoolal sama nopp bi ñu dagg kooku mu ne ko looloo gën ci yow mu ne ko ya yow ñu dagg sama nopp nga naan moo gën ci man tëjal leen ma waa ji ñu tëj ko buur bi tane génn di promenade daal di génn frontière dugg feneen ñu ne ko saax téye te ñi ko téye dañ doon wër ku ñu reyal seen yàlla moom lañ jàpp xamuñu kan la ñu ne comme dañ doon wër ku ñu rey étranger bu bokkul ci ñun jàpp nañ kii nan dem rey ko ñu dem sëggal ko ci xërëm bi bu koo rey waa ji yëkkati jaasi ji mu gis waa ji benn nopp la mu ne yéen li ngeen indil yàlla ji matul de ñu ne lu matul mu ne kii dafa manqué ndax benn nopp la am ñu daal ne bàyyi leen ko mujj bi ñu bàyyi ko mujj bi mu ñëw toog daal ne génne leen ma sama waa ji ñu génne ko mu ne kaay ma nettali leen li ma dal ko la moo la dal mu ne ko dama génnoon dem rek ñu jàpp ma nar ma rey xam nga lu tax ñu bàyyi ma mu ne ah mu ne sama benn nopp bi mu ne waxoon naa la moo gën mu ne waa yow li ma la tëj kaso nag mu ne moo gën ci man ndax bu ma àndoon ak yow man la ñuy jàpp te buñ la xoolee nga manqué man la ñuy rey kon tëj kaso moo gën ñu rey ma yow tamit sa nopp bu dagg bi moo gën ñu rey la kon yàlla lu mu def noonu la allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
بسم الله
بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح